instant itam mu ne fa mu ci nekkoon démb rek foofu la ci nekk tey itam mu ne dafa yokk waaye du wàññeeku mu ne noonu rek la demee mu ne daf ko dénkaane woon rek mu ne fa mu ko dénkaane woon mu ne tey jii la ko fa la ko gën a dénkaane tey foofu rek la ci nekk mu ne foofu rek la ci yem itam mu ne doy na sëkk mu ne doy na sëkk mu jërëjëf mu ne mbooloo mi am bu baax a baax mu ne am yaakaar ci mu ne na ngeen gën bu baax mu ci jàmm jooju rek mu ne fu ngeen nekk fu ngeen toll mu ne na ngeen woote jàmm rek eh, sëñ Mountakha Mbacké ñëw ànd feek sunu candidat yëpp Eh, ñoo taxawe nii muy sëñ Galas Kaltum Mbacké ànd ak sëñ Cheikh Abdou Laxat Mbacké ak eh, sunu ay responsable yi fi nekk yëpp voilà Laxat eh, Seck mi nga xam ne moo jiite comité électoral bi ku lim juum waaye ñoom ñëpp a ngi fi soxna yi tamit ci la ñu bokk ñoom ñëpp a ngi fi macha allah ñu waxtaan ak sëriñ bi mu yeb ñu it sëriñ bi ñaanal ñu dañ koo jottali si d'abord ziyaaru Euh, président de la république doomam son excellence monsieur Macky Sall ah wax ko it euh, ne ko président euh, mu ngi lay biral ne liggéey bi nga xam ne am na ko fii ci dëkku Touba bi ah dina ci continuer dina ko gën a baral waaw ah, loolu doon contribution am ci liggéey bi nga xam ne moom la xalif général di liggéeyal sëñ Touba ah sëñ bi it yeb ñu ah la mu digal nag mooy lu nuy def rek nañ ca jiital jàmm ndax jàmm ji réew mi. Euh, mu yeb ñu it ne na kàddu yi rafet na kàddu yi teggi ne te am na yaakaar it ne ah ni mu ñu xamee ndax ay waa këram it ci am nañu ci ne ay doomam yu ne ci liste bi a ah, euh, dina nu ñu nit doxee euh, ci ay ndigalam ba lépp lu ñuy def rek doon luy defar Sénégal ci wàllu xalaat ci wàllu proposition a ah, ñoom ñi it wax nañu ko ne ñuy ñaan vraiment mu ñaanal ñu ñu dese suñu sago. ndox sago dafa am solo ci àddina euh, sago nag mooy mu ngi tàmbalee ci nga xam ne Sénégal benn bopp la nga ban koo xaajale euh, bañ xool mbiru waaso bañ xool lépp loo xam ne lii mën naa féewale Sénégal ndax ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ah ñu tàllal sunuy loxo it ne sëñ mu ñaanal ñu ndax ñu am ndam waaw loolu it euh, bokkoon na ci li tax ñu ñu ñëw tey ànd kook suñu responsable yëpp kenn manqué wul ak ni ngeen ko gisee Euh, vraiment ñoom it ñu doon benn ànd doon def benn say ci département bi yëpp bi ñu ñëwee maire yëpp ñëw nañu ñoom ñëpp a ngi fi responsable yëpp ñëw nañu euh, candidat yëpp ñëw nañu ba alhamdulilahi rabil alamin am nañu yaakaar bu baax a baax a baax a baax euh, ne dinañu am ndam sunu représentant yi nga xam ne ñoom ci Touba la ñu nekk am nañu yaakaar bu baax ndax ñëpp xam nañu leen d'abord ci liggéeyal sëñ Touba xam leen aussi ci seen teggine ak seen kàddu yu rafet euh, ak ci seen engagement kon ñooñu am na nañu yaakaar ne bu nu taxawalee Touba ci assemblée ba ah waa Touba dañu ci am kontante dara du leen ci métti ndax noonu la ñu leen xame ñu ngi ànd ak ñoom léegi mu mat fukki at waaw te mosuñu leen de wax dégg wax lu teggine wut euh, mosuñu leen dégg wax ñoo xam ne lii ah, askan wi ah, dana xaw a jaaxle kon euh, loolu it ci li tax ñu jàpp ne dinañ am ndam ci la bokk ndax ñoom. Euh, vraiment fii ci ak ci àddina bi yëpp euh, vraiment euh, ni nu doxalee ba léegi macha allah vraiment dal na sunu xel ci ci ci ci teggine ci ci yiw ci yiw ndax loolu la ñuy xaar ci njabootu sëñ Touba yiw ci yiw yiw da ci am solo lool yiw nag mu ngi tàmbalee ci kaddu yu rafet ci kaddu yu rafet ak ci doxalin bu rafet te macha allah ñoom ñii day Euh, sunu ay euh, camarades lañu waaye suñu ay sëriñ lañu euh, booba ba tey it wax dëgg yàlla voilà satisfaction rek la ñu am ci ñoom ak soxna yi aussi ñu wax ak soxna yi ah ñu ngi ànd ak soxna maam Xari Mbàkke mi nga xam ne opératrice économique bu mag la fi ci Touba ñëpp xam ko wala mu am taxawaay woo xam ne wii aussi sigil na jigéen ñi comme man mi nga xam ne tête de laa doon jigéen it Euh, moom it mën nañoo jàpp fii ci Touba sigil na jigéen ñi ak ñi ne ci list bi yëpp euh, ku lim juum euh, soxnay tuubaa yit ku leen xam xam leen ci nangu liggéey ak ci jaamu yàlla ak gëm sëñ Touba. sunu xalaat yëpp ak sunu waxtaan yëpp doon ci li jëmale askan wi kanam te loolu nag ci campagne électorale bii ñu ne ku ci ne war nga cee mën a wax yaa xam opposition nga nekk wala yaa xam ci benn bokk yaakaar nga nekk. bu fekkee ne Sénégal la ñu jiital rek di waxtaane nu ñuy fexe ba mbay mi dox nu fexe ba napp gi dox nu ñuy fexe ba xale yi am liggéey nu ñuy fexe ba jàppale jigéen ñi seen liggéey nu ñuy fexe ba njàng mi dox nu ñuy fexe ba wërgu-yaram bi jox loolu vraiment euh, du am benn problème moo tax foog mu doon campagne yu xel bañ a doon campagne yu xeex kaddu yi jub muy kaddu yoo xam ne yii ak nu nu mën a feewaloo rek bu nu dem ci yëfu waaso euh, nañu jàpp ne Sénégal benn bopp la waxtaanu waaso ñu teg ko fële loolu baaxut ci réew loolu day day féewale réew te alhamdulilah rabil alamin mag yu mag yi fi tëdd ah ba ci fii ñu ñëw muy dëkkal ah, xaadimu rasul ah defe naa ne kenn xàmmewu fi kenn voilà lii boole ñëpp rek mooy gëm yàlla gëm yonent ak gëm sëriñ bi gën sëriñ Tuuba donc loolu it ah, mooy ah, li nga xam ne mooy kàddu yi di sant yàlla di julli ci yonent bi waaye di am mbégte lool ñëw ziyaare si Cheikh Ahmadoul Mountakha Cheikhul Khadim tàllal ko ay loxoom ci ni ko ko président sante moo ñëw indi ziaram indi yóbbante président république ci sëriñ bi bi mu ko defee dégg nañ kàddu yi mu jëlee ci sëriñ bi kàddu yi dal xel la ndax weesuwul mooy kilifa ak diine di sunu wayjur di wayjuru président soññe bu rafet bi nga xamante ni moom la tàmma def ci waxtu wu ne mu soññ ko soxna si te loolo lay soññee président loolo la ñuy soññee mooy ñuy wax wax ju rafet di dox doxin wu mat a dox loolu boo koy def ñu la war a dégg danañ la dégg te bu ñu la déggee danañ la amal njariñ kon ni ñu mën a tënke loolu rek mooy li ñu jëm ñoom it ñu ñëw taamu ubbeeku Touba fekk ñu fi muy sunu mbégte it ñun ñu dëkk dëkk bi ñu ngi ko ànd ak sunu bàjjen soxna maam Xari Mbàkke di ci sant bu baax mais di leen ñaanal aussi ci tànk yi ñu yëkkati ba jël seen xel ak seen xool def ko ci Touba ngir ubbee fi campagne bi sëriñ bi ñaanal ñu ñu ziyaare ko ñu waxtaane ak moom kaddu yoo xam ne dal na suñu xel ndax mooy kàddu yoo xamante ni moom la ab jullit war a doxe moom la ab taalibi war a doxe kon man ni ma koy waxe rek dama jàpp ni képp koo xamante ni yaa ngi ci liste bi yow yaay tëdde liste bi bi ñi ci nekk ñooy tëdde liste bi du galaskaltoom ku ci nekk la ñu nekk liste nationale ak ñu nekk départemental ak responsable yi ci dëkk bi kenn ku ci nekk na gëm ne yow yaay tëdd liste benn Bokk Yaakaar ren ci Mbàkke parce que lii tax liste bi dox population bi la lii tax mu dox ñëpp la góor ak jigéen kon ñi ngi tàllalaat ñëpp loxo di leen wax ñëw leen ñu àndandoo liggéey bi di dox lu rafet tey sàmm kaddu yi nga xam ne la ñu génn suñu gémmiñ di ñaan yàlla suñu borom bu ñu àggee ci le 31 juillet suñu borom defal ñu nopp amuñu noppul démb lañ campagne bi ubbi bi ñu jullee it ba pare ñi mën a ànd dem nañ seeti ay kilifa diine ci dëkk bi ziare leen seeti yenn responsable yi nga xamante ni yàlla dafa dogal seen yaram sutante ñu seeti leen saafonte ak ñoom yëkkati la ñu am muy benn muy ñaar teg ko ci seen loxo ngir ñu xam ne ñun dañ leen nekkal ci terrain bi mais fi ñu tëdd ñoom danañ yëg ne ñii dem kat bàyyi nañ leen fi ndax lu leen dal mais ñoom ak ñoom ñoo ànd. waaw li ñuy wax waa Touba mooy ñun doomi dëkk bi lañ te jàpp naa nit li nga ko miine nga koy jàppee yar lañ ñu miine ak i teggin akuk taalibe ci yar ak i teggin akuk taalibe la ñuy waxtaanee ak nit ñi ndax li ñu soxla ci nit ñi la nekk. mais image yu président am nañ ko parce que soxna si fi ñëw moom moo yëkk ci tànneefam teg ko ko. bi mu ko defee parti bépp ànd ci rafetlu ko muy aussi ku ko ku incarné lu tax ñu war ko ko mën a jox. kon ñun li ñuy def mooy laxasaayu nekk benn topp ci gannaaw soxna Aminata Touré jàppe ko président de jàpp ko jàppale ko mais àndandoo ci suñu biir ci département bi àndandoo nekk benn bi def benn bloc maire yi ci commune bi yëpp ñëw nañ responsable yëpp ñëw nañ kon jàpp nañ ne ñun président mi ngi ci suñu biir ndax bëgg-bëggam bi mu yëkkati teg ko ci ay loxo ngir ñu war koo dox pour mën a mottali ab liggéeyam loolu yàlla dogal ñun ñëpp ñoo ko àndandoo ci dëkk bi ci jàmm ak salaam